Papa Ndiaye maa ngi lay nuyu. Euh, jërëjëf euh, soxna Awa maa ngay fay. alors ngay jiitu euh, conseil régional ñi nga xam ne ñoo yor wàllum jeunesse ca Saint-Louis tey nag muy bés bi ñu jagleel ndaw ñi daanaka mu tombe sax ak chômage gu bëri gi nga xamante ne ñoo ko nemmeeku ci ñoom pour yow lan moo waral lu ni mel. waaw tey bés la bi nga xamante ni bés am solo la bu nu jagleel mooy ndaw ñi ci àdduna yëpp donc rawatina fii ci biir Sénégal donc mu dëppoo ak euh, jafe-jafe yi nga xamante ni ndaw Sénégal yi ñu ngi koy mu dem ci wàllu mooy xëy euh, te tey bu nu xoolee statistiques euh, yu ANC yi génnee rek wax na ni chômage bi mu ngi toll ci vingt trois virgule quatre pour cent mu nekk li nga xam te nag lu ko waral maanaam lu bëri la ci yooyu mën nañ ci jukki ma yenn rek yu ëpp solo mooy li nga xamante ni dafa jëm mooy ñaan ñàkk méngole mooy lu nuy former ci sunu école yi bi nga xamante ni maanaam mooy dëppoowul ak bëgg-bëggu maanaam entreprise yi déjà rek loolu rek benn jafe-jafe la boo xamante ne am nañ ko donc ci wàll boobu noonu beneen bi aussi mit mooy Sénégal nag nekk na réew mi nga xamante ne nag amul politique d'industrialisation te ñun dañu jàpp ni maanaam tey industrie moo mën a créer ay emploi yu bëre ak yu décent pour ndaw ñi beneen bi aussi tamit mooy tamit ñu gis potentialité yi nga xamante ni le secteur primaire am na ko lu mel ne mooy wàllum mbay wàllum càmm ak wàllum napp waaye ndaw ñi maanaam jotewuñu ci li nga xamante ni moo leen war a mën a permettre ñoom ñu mun a nekk ci yooyu secteur lu mel ne que maanaam muy wàllum suuf mooy wàllum tàggatu ak timit maanaam wàllum mooy financement pour ñu mën a euh, intégrer donc yooyu secteur yooyu rek maintenant tey ay ay problème la yoo xamante ni am nañ ko donc ci wàll ci wàllu boobu noonu. alors hmm. ak aussi tamit. Hmm, hmm. mu am ay politique yu bëri yi nga xamante ni état bi maanaam teg na ko waaye des fois ndaw ñi pour ñu jot si dafay nekk maanaam euh, lu xaw a doy waar am problème bu baax a baax si ñoom. alors mu bari nag ay ndaw yoo xamante ne ñoo ngi jël gaal gi jamono ji ñu ci bëri di ñàkk seen bakkan euh, ci géej gi mu mel daal désespoir euh, la ñuy dund ci seen biir dëkk. waaw lu ñuy méttadlu la lu ñuy euh, ñaawlu la euh, nga gis maanaam Sénégal donc lu mu am potentiel bu gën a mag mooy ndawam ndaw yooyu maanaam di màbbeeku di euh, jóge Sénégal pour dem mooy tugal pour am maanaam avenir bu ñoŋ mante ñu bëre di des maanaam ci géej gi wala ci désert gi mu nekk li nga xamante ni yàgg nañ koy ñaawlu te yaakaar ni maanaam nguur bii nga xamante ni moo fi ñëw bees war na war a mun a indi ay saafara donc ci wàll boobu noonu parce que bu ñuy wax maanaam ci wàllum euh, initiative nga xam ne mooy état bi mi ngi koy teg ku ndaw ñi nekkul tey parce que bu nu xoolee depuis ci jamonoy Senghor maanaam am na ay programme yu ñu tegoon lu mel nag ay opération des magasins témoins ci ay années soixante-dix ak yooyu noonu fii jamono ab Diouf Simit am na ay programme lu mel ne opération des maîtrises chômeurs ak tamit lu mel ne maintenant la convention état employeur ba si bii ba si président comment dirais-je Abdoulaye Wade indi woon na ay programme Gowana Reva bu ñu ñëwee si le président Macky Sall indi na ay ANPEJ indi na ay DER mais ba léegi ndaw ñi ñu ngi continuer maanaam di jël gaal moo tax mu laaj ñu def maanaam taxaw seetlu ñu xool milliards yi nga xamante ni dugal nañ ko ci yooyu programme mu nekk état bi wala mu nekk maam partenaire au développement yi ñu war ko war a mun a saytu xool yooyu yan impact la am ci ndaw ñi maintenant bala ñuy mun a nas ak di nocci yeneen ay programme mooy ci wàll boobu noonu parce que aussi bu ñu xoolee tamit ndaw ñu bëri ñi nga xamante ne ñoom ñooy jugee Sénégal di dem maanaam mooy Europe fu ñuy jugee mooy si monde rural bi la ñuy te ñëpp xam nañu maanaam monde rural bi nekk na zone bi nga xamante ni bëri na ay potentialité si wàllu secteur primaire suuf see ngi fa mais nan la ñu war a mun def ba ndaw ñi war a mun a jote ci loolu noonu beneen bi aussi moo tamit comme ni defee ay autoroute à war nañ ko war a mun a defee noonu ay autoroute ndox yi nga xamante ni dina jógee maanaam ci région yu mel na que mooy Saint-Louis bi nga xamante ni nekk na vallée du pour ndox moom na nga xam ne ñu ngi yàq ci géej gi maanaam mun a dem ci réewu taax yi maanaam mun leen alimentaire en terme d'eau ba nga xamante ni daanu mun a bay noor mun a bay nawet hmm. loolu dina tax maanaam mooy tey ndaw ñooñu maanaam gën a mun a des seen yooyu localité moo gën ñuy ñëw maanaam fu mel na Dakar fu mel na que saint rek ñoom seen maanaam di def wàll liggéeyu jakartamaan wala ñuy def maintenant mooy wàllu mooy ambulant wala tablier bu ñu bëggee saafara maanaam wàll migration bi bëgg saafara maintenant mooy wàllu chômage bi mooy jeunes yi ak problème mu comment mooy tablier yeeg marchand ambulant yi ak jakartamaan yi nanu def ba nga xamante ne maanaam mooy ndaw ñi daanu mun a def seen ay gox ak seen goxaan mun a gis seen bopp wàllu mbay mbay mi nga xamante ni maanaam méngoo na ak jamono bi nga xam ne li naan mooy intelligence artificielle daan ko mun a ci wàll boobu noonu Sénégal mun a am lu naan mooy wàllu souveraineté alimentaire daw ñu am ay xëy yu baax donc ci wàll boobu noonu. alors ay mais est-ce que politique de jeunesse am na réellement fii ci Sénégal. Sénégal nag moom amuñu amuñu politique de jeunesse maanaam ba nu amee indépendance ba léegi tey jii mu nekk ci lu ëpp maanaam 63 ans. ba léegi Sénégal amul benn document officiel de politique de jeunesse euh, le président Macky Sall ba doon jeexal gis na ni maintenant programme bu mu indi woon muy le PSE le PSE amoon na benn manquement boo xamante mooy amoon na mooy lu ëppoon ci population bi représenté plus de soixante quinze pour cent maanaam jël ñu leen woon en compte ci politique boobu nga xam te naa moom tëraloon na ko moo taxoon ba mu doon dem mu defoon maintenant le PSE priorité ndaw ñi pour mu nekk maintenant la première politique de jeunesse Sénégal waaye gis nañu à ce que euh, gouvernement bu bees ba mu ñëwee daanaka euh, waxagu si lu bëre ci wàll boobu noonu maintenant nag ñu nekk jàpp nag maanaam état nag continuité de la te tamit euh, bu ñu ñu ëpp ñu fi yeewoo ci réew mi nekk nañu ay jeunes te contribuer nañu bu baax a baax a baax ci tey moo dem le président Diomaye ñëw si pouvoir bi donc kon jaado na ñooñu ñu mun leen natal benn politique bi nga xamante ni dina mën a jël en contre seen besoin ak seen aspiration hmm. parce tey mbiru ndaw ñi yamul dong ci wàllu mooy que emploi parce que bu ñuy xool tey say ñëpp ñuy dem Eh, di jël maanaam gaal foog ñu am askoom soit maintenant mooy ñooñu am nañu ay emploi mais emploi bu benn xeetu emploi la est-ce que emploi bu décent la est que emploi bu durable la parce que bu ñu daan wax maam ci wàllu mooy emploi décent am na lu si dugg mooy si wàllu protection sociale te tey bu ñu xoolee tey ndaw ñu bëre ñu yeewoo fii si biir Sénégal am na nañu ay jafe-jafe tey bu ñu feebaree maanaam mun a faj am na nañu ay jafe-jafe pour am protection sociale am na nañu ay jafe-jafe pour am mooy ay dëkkuwaay parce que boo xoolee mooy ndaw ñooñu mooy ñëpp seen kër waajur yi la ñuy dëkk parce que da ngay nekk mooy ndaw am plus de trente cinq ans ba ay quarante ans ba tey mënoo am mooy kër gi nga xamante ni war nga mun dëkk beneen bi aussi tamit mooy cet aspect de produit jeunesse nekk na li nga xam aussi tamit moo tax ci mooy jeunes yi du mën contribuer essentiellement ci li nga xamante ne mooy instant de prise de décision yi moo tax tey ñu war a am benn loi boo xamante ni dafay nekk une loi d'orientation mooy jeunesse pour gën a mën a tenir en compte les besoins et les aspirations des jeunes tey Sénégal tey ñëpp ñu fi yeewa ay jeunes la waxoon naa ko kon ñooñu foog maanaam ñoom ñu mun a teew ci lu naan mooy instant de prise de décision yi ñaaw na loolu ci dëkk bu mel ne Sénégal ndaw ñi ëpp si ba pare booy xool en terme de représentation donc ci biir instant de pluie de juin doo gis ndaw boo xoolee gouvernement bi ñu teg amul kenn ki nga xamante ni doon na ndaw parce que nag bu nu waxee ndaw nag mooy nit ki nga xamante ni maanaam am na si diggante mooy quinze ba trente cinq ans te boo jëlee Sénégal ñu ni la à l'âge de dix-huit ans am nga droit mooy voter waaye boo amulee vingt cinq ans jëm kaw doo mun nekk député boo amulee trente cinq ans jëm kaw doo mun a présenté wu donc si élection présidentielle mu nekk li nga xamante ni ay manquement la ay jafe-jafe la yi nga xamante ni kenn du mun a maanaam mooy déglu besoin ak aspiration wu ndaw ñi ci li nga xamante ni war na mun nekk ci wàllu développement Sénégal moo tax ñuy ñaan tey le gouvernement mu mun a adopté benn gouvernance bu inclusive bu participative ba nga xamante ne maanaam mooy ndaw ñi daan ci wara a a gis seen bopp mais foofu noonu dafa war a a tàmbale ci ñu am benn politique de bi nga xamante ni da koy def pour ndaw ñi ngir ndaw ñi ak tamit ak ndaw ñi mhm. alors conseil euh, régional de la jeunesse bu Saint-Louis lan ngeen euh, jot a def ci lu ni mel waaw ñun yàgg nañu def euh, ay jéego yu baax donc ci wàll boobu noonu donc ba tamit ay plaidoyer pour ñu am mooy ndaw ñi dans les instances de prise de décision ba si politique bi nga xamante ni gouvernement bii génn doon naka nas mi le PS priorité jeunesse am na taxawaay bu ci amoon ci wàll boobu noonu waaye nag sunu mandat dafa jeex depuis deux mille dix neuf mandat gi mooy jeex na te bu ñu xoolee maanaam tey ci biir conseil de la jeunesse ñu si nekk ñu bëri maanaam tey jégg nañu maanaam limite d'âge bi te bu ñu xoolee sax des fois yenn jiir yi nekk koo seen laaj ne sax ñoom mag sax moo ñu gis réew mi donc kon loolu kon laaj na état bi def ay jéego yu am solo nu mu gën a gaawee nu mu gën a baree ba ñu mën a renouveler le CNJS bi nga nekk mooy ëtt bi nga xamante ni mooy xalaat te moo war a défendre les intérêts matériels et moraux de la jeunesse sénégalaise mm-hmm. donc ñu ngi ñaan mooy état bi bees maanaam balaa at bi di jeex mu mun a sóobu ci ay renouvellement wu CNG. Fara Ndiaye jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu conseil régional de la jeunesse bu Saint-Louis ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf maa ngi leen fay bu baax a baax te di rafetlu invitation bi.